ça va ça va ça va ça va mais monsieur le président son excellence. waay waay waay sant. son excellence je voulais savoir euh, affaire référendum bi nga wax yow da nga wax da ngay def référendum bi ci mai bi et puis waxuloo ko waa Sénégal da nga koo wax waa Europe yi journaliste Sénégal yi mere nañ la de loolu lan moo tax wala dañ la ko waxal wala yaa ko waxal sa bopp moo loolu moom mu jaaxal mu ne xaaral mu wool allo président président yeewagul de. yeewu na kay. ah, ah sa laaju ñu ma ko. ah. média laaju ñu ma ko. laaju ñu la ko jëmuñu wut audience bi. waaw jëmuñu ñëw ci man pour laaju ma ndax kii les médias occidentaux qui m'ont demandé. oui et je leur répondis que oui. je vais faire un référendum. oui ci mois de mai bi donc je pense pas que loolu am na benn affaire boo xam ni. oui jar ñu xëy. oui pour léegi léegi. oui. broker moo ma woo ne ma ndax lër nga journal ma ne ko nono uh-huh. mu ne ma xoolal journal bi tey yow lañ ci ngawte ngawte yow lañ ci band barajee waaw donc brokeram affaire bi métti lu ko ma ne ko waxoon naa ko mais ñoom nanguwuñu ma laaj waay maa woon ma laaj ma tontu leen. waru leen métti vous le président pour la ndax référendum. c'est pas au mois de mai 2015. non non 2015 mois de mai 2015 ou bien que man j'ai entendu Alassane Samba Diop de la de autre télé quoi. moom wax na ni yaa ngi waaw waaw Alassane Samba moom na ni moom laaj na la audience pour laaj la lu jëm si affaire boobu mais yow nanguwuloo ko tontu si affaire boobu. léegi lu mel ni góor soo ko continuer parce ba tàng soo ko mën a wax ak yow yi nga xam ne bëgg naa ko wax ak yow. waaw naanal café. amul problème. programme maam yóbbu na la nga teg fële ma àggale ak boy bi. waaw a ah, ma jëtata. mooy waxal këram lay wax. dama bëgg nga xam ni. li nga xam ni wax naa ko je le dis et je ne le redis pas. waaaa dégg nga bu fekkoon ne média sénégalais yi dañu ñëw ñu laaj ma waaw ne ma président dafa am loo xam ni waaw Moustapha Cissé Lo nangu ko yenn partisans affaire yi nanguwuñu ko nee nañu affaire bi ñoom dugg nii commencé guñu sax def seen ñu bëgg leen fi jëlee ci juróomi at loolu nañu ko xolaat donc comme maa ko waxoon ñu bëri dañu ma mereen da nga da nga ratak da gaaw a wax waaw da nga gaaw a wax ma ne leen non non non dama ko yéene Sénégalais yi. waaw moo tax ma dogale ko noonu. waaw mais xam nga yow dégg man li ma si jaaxal. son excellence man maa ko moomal suma bopp. waaw dafa am loo xam ni aussi. waaw naka la loo xam ni. Uh-huh. ñoom militant APR yi ñoo ko moomal seen bopp. waaw léegi nag dama koy teg ci digg bi. waaw Sénégalais yi jël seen wàll. waaw waaw d' accord d' accord militant yi jël seen wàll. lu ngeen wax président nag dañu dul may foo safalee quoi loolooy problème président. Euh, son excellence. wax nga ko doo wax léegi léegi yow. Euh, son excellence. waaw léegi yow man dama lay Moussa loolu nekk di toppatoo ay. moom il a parlé de l' implication de la libération de Y'en a marre du mouvement. voilà l' implication de la libération de la Y'en a marre <laughs> ngi wax. fi naan ay américain. non loolu la amul pour wax la. waaw. j'ai pas ndax dama war a dem léegi-léegi benn réunion. pour am ay. mais l'implication de Y'en a de Y'en a marre loo si poto def ba. vraiment mais bi ma a ko taxawal. waaw a loolu ma ci wax mooy Sénégalais bu ci d'accord woote wii. bu ci dagorul wote non. waaw te man li ma gën a bëgg sax mooy ngeen wote wii ndax ma dem satan bi ndax affaire bi du noonu. waaw mais j'ai une question ici. Euh, l' a marre c' est euh, Moussa euh, notre journaliste là bu bu ndaw bi moo ko wax. son excellence. da nga foog ne président dafa am temps wu toog di la déglu. kuy buruka doon waxal ku mu doon wax. ah buruka burukërim. waaw première dame burukërim. waaw ah. ah wala. mooy kii madame Sall. waaw moom la wax yow looy woowee sa buur kër yow sa aaw kan man aja aja nga koy wooye utiloo ko slogan aja slogan am na fu mu lay jàpp da nga koy wootel slogan rek am na fu mu lay jàpp nga wootel ko slogan comme am di caam moo xew de non waxu ma loolu am di bala man ca dégg nga li mu wax yow de waxi am di caam di moom bu yàggee nag baa du dara ah neex na ko de ah neex na ko de ah non damaa xam ni yoro rolu yoro la waaw mais am di caam li mu la wax fii leer na Moussa dafa am jabar jabaram moo ko ko yóbbante mu ñëw toog fi wax ko waaye itam loo bëgg ti mais dara newu ci c'est toute la journée de ah, waaw mais toute la journée maa ngi gis nag am di maa koy gis yaa ngi dégg loolu samay wax samay wax la war ko woon wax mënoon na wax ci artisan après mu mu mu nga bëgg yaa ngi dégg nga bëgg waaw yow yaa ma moom sa maa ngi doon wax sàmba sànq sama kaar sax moomu ko maa ngi doon wax sàmba sànq am di dani yoro ba xam loxo bi mu lay teg yaa ngi koy delloo. muy yéen kii. am di waxal na la nee na ba xam loxo bi koy teg yaa koy delloo. c'est que Moussa. fais le test yi njëkk a kon kon man la waxal. waaw sa loxo yi ñagas yi sa loxo yi ñagas yi. barki Rasul daa <laughs> Euh, on a décidé de marier, le directeur de la télévision a décidé de nous offrir marier femme. Voilà, qu'est-ce qu'il en passe C'est la parole aux femmes, hein, donc tu peux parler. Ah non, mais c'est votre pensée vous, dans notre relation. Ah par exemple, elle, elle, est présentatrice. Moi, je suis, je suis, je suis, je suis chroniqueur. Comme tout ça, si on réveille dans notre appartement, on peut prendre la douce et après la douce, et on vient ensemble dans notre voiture. Elle a une belle bagnole, hein, Matzala, belle bagnole. Elle conduit nice sur les hmm. autoroutes, boum boum, toutes les vitesses. Je serai derrière, donc là, voilà, elle euh, conduit. La femme qui, est enceinte de son mari. Quoi. Voilà, la femme qui elle te conduit au travail. Quoi. Voilà, pour aller au travail, moi, je, elle présente retour, présente. Tu, la cuisine en retour. Voilà, et en retour elle cuisine. Qu'est-ce que ça passe

pas de main baladeur. voilà si lui, si lui, c'est lui quoi loolu lay gis mais non ça a toujours été comme ça ça n'a jamais changé. non waouh, non waxat wala. Boule teg sa loxo. waaw loolu ne mets pas ta main. mais nga wax ma ko ci ci sunu kàllaama moo gën parce que mën naa déplané wu si kanamu ndaw mu jàpp ah, ni yaa voilà. vous savez quand on force une relation. <laughs> qu'est-ce que ça donne comment ça. ça va. Hein. ça va. <laughs> <laughs> voilà noir et blanc taxi baa ngoog zone noire. voilà. dañu ko taxi baa ngi nii zone noire. voilà mais dara du doy ah. dara du doy. loolu loolu jàmbur du doy loo si am jëli ko. waaye wóolal papier yow ndig bu ndaw bi baraaye bi. <laughs> merci beaucoup à tout le monde on se retrouve euh, demain inchallah pour terminer euh, la journée pour terminer la semaine plus tôt. ce une journée spéciale et puis eh. eh. voilà merci beaucoup à tout le monde. et puis on se demain inchallah Joyeux anniversaire encore une fois à Nininia. Longue vie, santé de fer, beaucoup de bonheur. Oui. C'est de la part de tes enfants et de toute la famille. Oui. Bon appétit. Et bonne à... préparation de mariage aussi à, à Badara, notre journaliste. bi nga xam ni moom daf jànk la mos a doon. léegi nag décidé na takk jabar comme ñun ñaar ni ñu fas yéene dem ji nii sunu li nga xamante ni bii nii mu nekk li nga xam ne ñu ngi koy dem si nii yaa ngi dégg ñun ñaar.